bis ni tey atum 1968 Chérif mu ko fekkee dafa absent xam naa bu ko bu fi toogoon ci plateau dinañu nettali la fa xewoon muy génn àddina euh, euh, Lamine Koura Gueye mu amoon juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar nekkoon maire ay jamono maire bu Ndakaaru 45 1961 nekkoon itam député Sénégal assemblée euh, nationale française ba tey 45 1945 ba 1951 nekkoon également sénateur bu mel ne Lamine bëri woon na ay. Euh, euh, ndombal tànk euh, ci réew mi waaye itam ci wàllu politique ñu ànd ci ay kumba fàttaliku ko fàttaliku itam yeneen xew-xew yu amoon ci bis ni tey muy fukki fan ci weeru juin. fan ci weeru juin atum 2019 ci mbirum Petrotim njiitu réew mi Macky Sall dafa yëgle ni ko daal moom dinañu ubbi ab enquête lu mel ni information judiciaire ginnaaw ba waa BBC fësalee li xew diggante rakkam bi di Aliou Sall ak homme d'affaires bi di Frank Timis fukki fan ci weeru juin atum 2018 ginnaaw ba ñu ko jiiñee yorin bu ñaaw ba mu yoroon Prodac Mame Mbaye Niang nag dafa tekki ndombo tànkam ca ministère ba ñu ko dénkoon muy tourisme fukki fan ci weeru juin atum 1998 ubbite 16e coupe du monde de football ci réewu France Youssou Ndour si boppam nag moo wayoon hymne ba ñu jagleeloon coupe du monde ba mu àndoon si ak waykat bii di ak Red ca stade Vélodrome bu Marseille fukki fan ci weeru juin atum 1944 ñuy fàttaliku massacre ba xewoon Oradour-sur-Glane mu nekk massacre bu gën a mag bu réewu France mësa dund te armée allemande teg leen ko ndax nag lu toll ci 642 personnes faatu nañu si. fukki fan ci weeru juin atum 2019 basketteur bii di Tony Parker moom nag dafa xam ne ni que dafay arrêté carrière am jamono jooju nag mu ngi tolloon ci 37 ans te defoon na nag 20 saisons professionnelles 18 yi mi ngi ko fekkoon NBA. ñu taxaw ci fukki fan ci weeru juin atum 1968 mu tombe ak faatub Lamine Gueye fii ci ndakaaru ba muy am 77 ans moom nag nekkoon na fi maire bu ndakaaru atum 1945 ba 1961 itamit di ancien député bu Sénégal ci assemblée nationale bu France diggante 1945 jàpp 1951 ancien sénateur atum 1958 ba 1959 ak premier président de l' assemblée nationale bu Sénégal atum 1960 jàpp 1968 ñi ngi ko denc nag ca cimetière jullit ya nekk Soumbédioune docteur Amadou Cissé Dia nag moo ko wutu woon ci poste boobu mu nekkoon ñu dellusi si si choc bi nga xam ne génn àdduna Lamine Gueye defoon na ko askan wi ak jaar-jaaram ci wàllum njàng wàllum liggéey ak politique te ñu ràññee ko lool ci taarixu Sénégal. Maître Lamine mu ngi décédé effectivement le juin fii ci Ndakaaru la décédé bu muy décédé. dañ koy fàtti souvent bu muy décédé le 10 juin 1968 Sénégal mu ngi woon ci jafe-jafe yu mag mu ngi woon mu ngi woon ci crise u mai 1968 crise boo xamante ne moo opposé woon gouvernement Léopold Sédar Senghor ak euh, étudiants yu université Ndakaaru liggéeykat Sénégal yi tamit dugg ci crise boobu te ñépp xam nañ ni tey crise boobu nekk na crise boo xamante ne moo gën a metti fii ci Sénégal bi ñu amee suñu indépendance donc loolu moo taxoon nag bi décès bi amee taxoon na quand ñi nekkoon ci conflit boobu euh, ñépp tegaat seen revendication yi ñëpp ñëpp toogaat ngir rendre hommage maître Lamine Gueye ko hommage ngir jaar-jaaram ak tamit lu mu nekkoon ci instant boobu bi muy dund parce que dañ koy fàttali bu muy gaañu moom moo nekkoon président assemblée nationale moo tax le 11 juin 1968 Senghor organiser ko funérailles yu mag république bi rendre ko hommage ñëpp ñi doon xuloo ci crise u mai 68 bi ñëpp euh, nangu toog instant boobu pour vraiment rendre ko hommage yu mag après le 11 juin ci lañ ko suul fii ci cimetière Soumbédioune euh, ci Ndakaaru et le 25 juin Senghor tabb Amadou Cissé Dia comme président de l'Assemblée nationale donc loolu la doon wax ci mbirum décès bi ak importance bu mu am ci ginnaaw loolu kan mooy maître Lamine Gueye maître Lamine Gueye mu ngi juddoo en euh, mu ngi juddoo le 20 septembre mu ngi juddoo maître Lamine Gueye mu ngi juddoo le 20 septembre 1887 à Médine ci Soudan français foofu la juddoo loolu dañ koy fàtte souvent maître la Gueye juddoowul Saint-Louis juddoowul Dakar ci Soudan français Mali la juddoo bi mu juddoo foofu ci lañ ko déclaré comme ay émigré lañ Lamine Gueye yal na yàlla yërëm ko moxtaala mooy koo xam ne dafa bokk ci histoire wu Sénégal histoire politique Sénégal lii euh, sunu xarit bi wax rek euh, Mamadou Moustapha Sow di jàngale fële ci mm. département d'histoire mm-hmm. euh, ci Soudan français la juddoo Euh, muy actuellement Mali. Euh, mu nekkoon instituteur. nekk na également soldat de deuxième classe ci première guerre mondiale bi ñu bëri xamuñu woon cette partie la mais ay problème mu bët. moom moo taxoon ba ñu génne ko ci armée bi mu dugg nag euh, di nekk fële ci faculté droit bu Lyon ak bu Paris. Mhm. di fa def jàng droit. ci la jàngee droit ba génn nekk euh, avocat mm-hmm. mais Lamine Gueye également il faut ñu fàttali ni nekk na maire de Saint-Louis euh, nekk na également maire de Dakar mm-hmm. nekk ancien secrétaire d'État à la présidence du conseil mm-hmm. nekk également député au Palais Bourbon euh, occupé ay ndombol tànk yu bëri mais à chaque fois il a donné le meilleur de lui-même pour servir le Sénégal mi ngi doon wax sax daal ni j'aime ma j'aime mon pays euh, voilà ci euh, daal maanaam sama sang. Mm. jaral na ma sax ma génne sama sang. Mm. pour défendre mon pays donc. Euh, mm. euh, mu nekk koo xam ni vraiment. Euh, accalmie la indi woon ci moment boobu en dix bi mu décédé le 10 juin 1968. Ah parce que tout simplement les grévistes yi nekkoon université ak Senghor. Mm-hmm. ñu ngi woon ci jàppante yu metti mais moment bi mu gaañoo. Mm-hmm. ci la indi benn dal ci réew mi. Mm-hmm. bon voilà. mu nekk koo xam ni. vraiment marqué na l'histoire du Sénégal. jërëjëf merci beaucoup Mortala mu nekkoon un jour Sénégal un jour dans le monde xibaar yi ci gàttal Cheikh Tidiane lañ ci àndal bu xibaar yi biti réew